képp koo xam ne bëgg nañoo topp bu abonné ci chaîne bi rek di Mbacke Kadior TV luñ dugal ci dana ko am en exclusivité ci njaboot bi baaxoo bi ci tase ak nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Mouhamadou Moustapha muy bisub ziyaar waaye bisub déglu ndigal ci sëriñ bi nga xam ne mooy jëwriñu Daaru Xudoos ñu di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te may ko ak wér ñu di ko ànd nag ak diwaanu muridina ak mbooleem njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha gi yëpp ak daayira yi ak mbooleem taalibe yi mbokk yi tey suñu jotaayu tey bi dañ koy tënk rek ci ñeenti tomb tomb bu njëkk bi dañuy jox sëriñ Cheikh Lo daayira mu wax ci turu diwaan bi dalal mbooloo mi ñaareel bi ñu jox Serigne Ibrahima Jëmb mu wax ci turu njabootu Serigne Daw Assane ak turu mbooleem jëwri ni kër gi ak seex si yëpp rek ñetteelu tomb Serigne Cheikh Ndiaye lañ koy jox mu wax ci turu président diwaanu Mouride Serigne Ousmane Mbacké wax ci mbirum diiwaan bi ak yeccaaju ñeenteelu tomb bi soññee lay doon comme ni ñu ko baaxoo defee sëriñ Ahmadou Ndiaye Kérane moo koy jottali bu noppee nag ñu maase ànd teewlu sëriñ bi ci ay kàddu yi nga xam ne moom la ñuy dégg ñu door a yeewee ko incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokk yi ñu ngi teew yëpp. ñoo ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Ousmane Mbacké ñuy jëw yi ci wàllu mooy dina di leen dalal jàmm di leen sant ci teewe gi nga xam ne moom ngeen teew ci bis jii ñu àndandoo ñun ñëpp ginnaaw ñu teewee di nuyu Cheikh Mouhamadou Moustapha mi toog mu Cheikh Ahmadou Moukhtar di ko siyaare ci turu mbooleem buntu kër yi njabootu Cheikh Moustapha yi ñëpp kenn defu ak ci turu jëw ji nga xam ne nekk ci kër muy seex si ñoom ñëpp ñu ngi toog ak daayira yi seeni mbooloo jëw yi ñun ñëpp ñu ngi toog noonu de ak noonu yi ànd ak ñoom ñun ñëpp di feddali waa sunu cofeel sunu yaakaar ak sunu njëbbal ci Seex Ahmadu Mustafaa te foofu mooy seen Ahmadu Muxtaar tey ñu kaw suuf mbooloom njabootu Seex Mustafaa yëpp ñu ngi nii di la siyaare di fas yéene déglu sa digal li nga nu digal moom rek la ñuy def ndax kër gi moom benn baat rek la na ko sëriñ xaaral waxe woon ne benn baat benn baat benn baat yaay Cheikh Moustapha ñëpp a ngi kër yëpp nag kër yëpp a kenn ah noo ngi lay siyaar bu baax day ñaan suñu borom tabaraka wa taala yal na la suñu borom defal dund goo xam ne dañ doon dund bu yéeme te man ak na ko jënd góor bu baax ñaanale woon kilifa ne ko maa lay ñaanal sunu borom defal la téeméeri ak ñu toppal ànd ak bërëb dem loolu yi ñoom la ko ñaanal sëriñ bi mbooloo bi ñëpp mboolem ñi fi bokk teew kenn ku nekk xolam la ca nekk mooy li ma wax mooy waxtu nekk ñoo ngi ñaan sunu borom ah rusum ci defal la loo xam ne dana doon yéeme ci dund ànd ak wér ba li ngay ba yéene bi nga Cheikh Moussa nga defe ko na nga ko bëggee dana ànd ko yow ci barke Cheikh Moussa ñépp ko koy ñaan di la seeree it nag ci suñu jëw ji nga xam ne moo nekk ci kanamu mbooloo ma mbooloo mi waxoon na na naa jot li ay seere ci suñu jëw ji muy sëñ ma Mbacké Gaïndé Fatma dafa wàcce boppam ba tollu nun kenn ku ci nekk buy wax ak yow day day mel ne kuy wax ak moroom ñun ñëpp ay moroom la mu def te du suñ moroom moo nu gën lépp ndax maamam lañu yaakaar ñun ñëpp ki ngay ki ngay yaakaar maamam mu wàcc boppam ba tolloo yow kooku kenn mënu ko koy mbooloo man nga ñu lay seere ni ni mu jiite mbooloo mi rafet na xanaa ñu dolli ñaan rek ñu ñëpp dolli ko ñaanal bu baax ba liñ ci yéene lépp ak li ci mbool euh, mbooloo mi yépp ak mbooleem njabootu Cheikh Moustapha yi mooy bunt kër yëpp ña fa nekk yilif kër yooyee ñoom ñëpp ñoo bokk yéene ji mu nekkal leen ñu ànd ak moom topp ci ginnaawam fu mu na joxoñ rek loola la ñuy def te mu ngi ci euh, euh, taxaw taxawaay boo xam ne taxawaay bu yéemale ah kon sëriñ bi loolu mbooloo mi wax waxoon ne nañ la ko seereel ci sëriñ Ousmane Ba noonu it li nu war nun taalib yi yëpp ak euh, mbooleem jëw yi muy sut nag day bi nanu fexewaat nag fabuwaat ndax li gàllankooroon lii ba defuñu ko ñaari at yi ñëpp gis nañ ko mooy dañuy mën a wax ne saytaan yi duggoon ci adduna bi la euh, bëggoon na ci limal pas-pas yi ba sax bu ngeen seetloo am na pas-pas yoo xam ne ci limal nañu euh, noo ngi ñaan ci barki Seex Musaa sëriñ bi nga ñaanoon Euh, tax maanaam pas-pas yooyu yi nga xam ne da doon tàmbalee am xumaag xumaag boogee nga fóotal nu ko ci ba mu set wecc ba ban mën a fabuwaat euh, jaajuwaat yokkaat pasé bi ba li nga xam ne moom nga bëgg ci liggéey bii ba tuddee ko diwaanu mu dina ñu ñu defe ko na xam ne ni ñu ko bëggee te mu dëppoo bëgg bëgg Cheikh Moussa Ba noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa ñu ngi yëkkati kàddu nuyoo ak ziar bu jógee ci sëñ Abdou Khadre xalifa sëñ Doon Xasan doon leen wax kàddu nuyoo boobu ak ziar boobu ak fenn yëppal mu di ko jëlee ci sëñ Ahmadou Mokhtar li fi toog yàlla fi yàgg te wér ay mébétam ci diine ji ak yoon bi ak bokk bi ak réew mi yëpp te mu ànd koog moom te mu ànd koog moom itam kilifa bu baax bii fi nekk Cheikh na Ahmadou Khadim Billah di Cheikh Mouhamadou Mountakha ak njabootu Cheikh na Ahmadou Khadim yëpp radiyallahu anhu kon sëriñ bi sëñ Abdou Khadim ñu ngi lay nuyu lu bëree ba yabal na mbooloo mu takk sëriñ Bunda Ndiaye nekk ci seen kanam ngir wuy si woote bi ni ko baaxoo woon di ko wuy si di ko ànd ak yow am mu jot di fent li moom tam sëñ Abdu ak mboolem njabootu sëñ Dara Sam bi mu àndal seen njëbbal seen kóolute seen kóllëre seen yaakaar yi nga xam ni dañ ko fee fekkoon way jur ya àndoon ko Cheikh Mouhamadou Moustapha radiyallahu anhu bañ ko gisatul ànd ko sa mag yu baax yi ko fi wuutu ñu di ko doonante ba mu agsi ci yow yàlla dogal mu tase ak yow ak xilaafaam ak njaboot bi kon di fedd li bu baax a baax di dëgëral bu baax a baax loolee jiitu fas yéen koo dund fas yéene koo dundal ngirum dundal ànd ko njaboot bi kon gannaaw loolu yi mboolem cheikh si dañu maa jox seen kàddu kon bu dee mboolem cheikh si kàddu gi day jóge ci sëriñ Mbàkke Géey ngàcc mi nga xam ni mooy jëw li ñu seex si sëriñ Mbàkke Géey ngàcc nag buñ ko waxee sëriñ Njaay Géey mooy ndawam li mu yabal bu waaye nag sëñ Xaadim Gay moo ko fi nekkal fii gannaaw dañoo nekk ba ngàcc ngàcc ak fii dafa sori ba tax na kon sëñ Xaadim Gay moom lañ dégg seen kàddu sëñ Gaal Xaadim Gay nag ñu ngi nii toog ànd ak njaboot bi yëpp kon day mel ni kàddu gi kàddu ma kàddoo ma ma di ko ko jot bi kon mboolem seex si ñoom itam noonu ma wax rek ñi ngi yëkkati kàddu nuyoo bu jóge ci sëñ Mbàkke Gay ngàcc ak siyaar ak fedd li kóllëre ak yaakaar akum njëbbal di ko jëme ci yow sa jëm ju tedd ji di ñaan suñu borom tabaaraka wa mu yàggal na ci suñ kanam mu yàgg ci sa gannaaw te lépp loo mébal rek ci mbooloo mi te mooy li leen di jariñ ak nag aaxira suñ boroom defal na ko ba mbooloo mi nangoo topp sab joxañ bay tax li nga leen yéene ñu am ko loolu suñ boroom li ko man yàlla na la ko defal am nañ ci yaakaar nag ndax saa mbir moom saa boo dee gis ay jéego jëm kanam da yaakaar ni rek lii dana àgg jëm ndax jotaayu tey bii dañ cee seetlu loo xam ne lu am solo la te wax ji day yoonu soññee ndax seex si ñi ñu ànd tey ànd duggandoo ci jotaay bi toll nii ñu toll mu jot bañ dalee woote woote beeg léegi maa ngi fi doon ñëw waaye damay seetlu ni dawuñu ko defe nii xëy na kenn ku ne da nga daa jóge rek fa nga jóge ñu tase fi waaye nag joxante waxtu tase bokk tool ànd dikk toog loolu lu am solo la te ñoom seex si loolu rek noonu lañ war a def ndax nag ñoom dañuy war a xam ni ñooy soldaari kër gi nga xam ne ñoo war a aar kër gi bu demoon ba jaaxle nit ki ñoo war a taxaw fexe ba déggoo si jàmm fexe ba dégloo si ak dal kon daa mel ni ba nga xamee ni sëriñ bi ñu ngi boole sunu maam yi ak sunu waajur yi ak mbooloo mu topp ci ñoom ngir rek ñuy taxawu kër gi di taxawu lépp moo tax mag yi nag lañ waroon a ne nekk nañ ci ba jóge fi yàlla dogal mu des fi kon nañ laxasaay waat góorgóorlu waat fas yéene li fi mag ñi bàyyi ñu jëme ko sam yàlla bi dimbale yàlla nañ ci dimbale te naa ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi sëriñ Ousmane nee mi ngi jël siyaare ak nuyoo bi gën a sell gën a bi di ko teg say loxo di la sant bu baax a baax a baax a baax a baax ci ndigal lii nga ko jox di ko beesal gàmmu bu ne ak politique bu mag sëkk boo ko àndal nee na loolu mi ci sant bu baax de ci ñaanal bu baax ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu guddal saw fan wéral la ba yéene ji nga am ci Seex Mamadu Mustafa ak yoonu murid yépp nga àggale ko bi jaay Seydou wu jot sëriñ bi itam nee na muy sëñ Ousmane nee na mi ngi sant itam mbooleem kilifa yi daaru xuddoos ndax ndigal li bi mu jógee ñoom ñëpp ko ànd ak moom kenn desul kenn ku nekk soññ sa waa kër ngir ndigal li nga ko jox mu mën a antu nee moom itam mi ngi leen di berlum nuyoo di leen sant bu baax a baax a baax a baax di sant cheikh si ndax ñoom itam ndigal lii daa mel ne dañ koo jëlee seen bopp def ko seen njëfi bopp su jógee jamono bi nañu koy woo di ko soññ fu mu toll nee na kon mbooloom cheikh sépp mi ngi leen sant comme ni ko sëñ Ibrahima jëm bu waxee kon ñu ngi sant ñëpp daal ci euh, Cheikh si di sant itam bu taalibe yi nga xamante ne nag ñooy nekk di doxal liggéey bi ndax kilifa yi wax ak ak Cheikh si yëpp taalibe yi ñoo nekk suuf di doxal liggéey bi nga xamante ne moom nga ko sant moom nga koy defloo tam ànd ko ñoom ah muy fàttali nag ne diwaanu muridina ci sa kàddu lu jóge ci sa ndigal la jóge yaa ko santaane jublu ci itam lëkkale mbooleem kër yi Cheikh Mouhamadou Moustapha yi lépp loo xamante ne moo aju ci kër gi ñu di ko toppatoo di ko saytu rawatina màggaluk insirina muharam bi ñu di ko saytu di ko toppatoo di ko organiser di ko jéem a def ni nga xamante ne noonu la ko mag ñu baax ñi nga xamante ne ñoo la ñoo la jiitoon di ko defee nga ñëw fas yéene ko feddle noonu ci loolu itam mbooleem jeexitali kër gi lépp loo xamante ne jeexitali Cheikh Moustapha ñu jëm koo saytu ko ni mu gën a rafet ay anam nee na loolu mooy objectif yi nga xamante ne moom nga doxoon ci diwaanu Muridina di ko soñ jamono bu ne mbooloo mi ànd ceeg moom loolu nag ngir mu doxal ko nee na mbokki taalib yi mu ko àndal ñoom la loo ñu def ko ay ay commission yoo xamante ne kenn ku nekk la nga jëfeetoo yaa ngi ciy jéem a doxal na nga ko mane ngir jëmmal euh, ndigal li la ci jiitu mooy waa commission culturelle ñoom day wax dëgg yàlla ñu ngi jéem a lëkkale buntu kër yi Cheikh Mouhamadou Moustapha yi ndax bu màggal gi xëy na ñaari at yi moo jàll mu xaw na am ay tolof tolof comme ni ñu ko waxee léegi ci li fi xewoon waaye buntu kër Cheikh Moustapha yi na noonu topp kër gu ne dem fa waxtaan ak waa kër ga andi waa commission culturelle bu kër ga ñu waxtaan ci doomu Cheikh Moustapha wala waa kër Cheikh Moustapha googu bi nu paree waa commission culturelle bi jéem na noo dugg ci yeneen kër yi Serigne Touba yi fenn fu nañu invité commission culturelle ba fa nekk ñu ñëw waxtaanal leen ca kilifa googa waxtaanal leen ca ay jeexital ak digganteem ak sëriñ bi nee na def nañ ci lu bare bare loo xamante ne xëy na temps bi dafay xaw a ba dis ko war a mën a euh, waxe lépp ca loolu itam am na li ñuy wax commission sociale ñoom itam ñu ngi góorgóorlu baax kenn ku ne xam ne ne suñuy jub màggal gi da ngeen gis mbale mu mag set setal boo xamante ne ñu ngi koy waajale màggal gi ni ko Cheikh Mahamadou Moustapha daan defee ñu di ko ci barkeeloo di ko def at mu ne commission sociale boobu ñooy def seen i défense def seen dëbët ba ñu fas yéene ba dëkk bi satal Daaru Xudóos satal liñ mën a satal ci dëkk bi lépp itam ak képp koo xamante ne mi ngi fi di mbokkum taalibe ñu yëg ci moom ay jafe-jafe dina ñëw jox ko ci ak sëñ Ousmane ñu seet nu ñuy def ba dem ca moom jafe-jafe yooyu ñu seet lan ca ñu de ñu dugal ko ca ak leneen ak yeneen yoo xamante ne waa commission sociale ñu ngi ko doon def communication itam gis naa ne jamono bu ne ñu ngi nii taxaw ànd ko xarala yu bees yi fas yéene ba li nga xamante ne mooy xew léegi lu waaye di def dana ko def ci communication def ko ci xarala yu bees yi ñoom itam ñu àndante jaayante ci ginnaaw sëñ Ousmane di jéem a doxal liggéey bi ni ñu ko war a doxale népp nee na itam ñooñu ñu ngi leen ci sant bu baax a baax ak si itam li nga xam ne mooy commission finance ñu wax ne liggéey bi luñ ko bëgg bëgg a liggéey faw mu am ay koppar yu ndaw yoo xamante ne moo koy def waaye benn ci waxtaanee de ñu ne koppar yi jërul bari nan ko barkeeloo ci ñaar ak juróom ñu ne taaliba bu ne ñu ngi jey ñaan ñaar fukk ak juróom-ñetti weer wu ne wala bu fekkee at mi jeex na muy 1680 ñu def ko loo xamante ni addee ji ñuy jëbbal sëriñ bi ndax bi naan lu ñu fi dajalee moom du waaye lu ñuy delluwaat ci bi la xam ne 1680 yooyu ñuy laaj mooy li doxal liggéey bi mooy li doxal màggal mooy li doxal li nga xamante commission culturelle ak lépp li ñu fa war a kon nag ñu di ci ñaaxaat ñëpp di ci góorgóorlu bu baax a baax a baax di xam ne loolu bokk na ci li nga xamante ne mooy li koy doxal xëy na nag euh, ni nu ko bëgg a guddal bëgg koo faram-fàccee temps bi du ñu ko may waaye am na ñu ñëw suñu ginnaaw ñoo xamante ne noonu gën a am fasaatu kalaam danañ ko gën a leeral ñu ngi ko bëgg a leerale ah wax itam soññee bi ndax euh, ñaari at yi jàll nga xamante ne dafa tolloo na Covid bi xawoon naa xaw a sooxeel tuuti yëf yi waaye nag yëpp sëñ bi moom yëfi kanam rek la amul ginnaaw kon nag ci turu sëriñ Ousmane donte lot nañ ci loolu itam waaye ñu doon jéemale jottali kaddu yooyu ci ah di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne wax dëgg yàlla ñu ngi sant wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu jéggul lépp wasalaam sayidina wa mawlana muhammadin al wa ala alihi wa ashabihi wa xadimihi zawi ridwani wa tamkin mbokk yi asalaamualeykum wa wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki talibe yi leen di nuyu te di leen ziar kenn ku nekk am nuyoo ak ziar ñu mel moom ak waajuwaay bi la suñu borom jox noo leen di ñaanal yërmande suñu borom ak njëgalam barke Sëriñ Tuubaa suñu yéene ci yéen bu doon jëmm ñeme nañ ko indi ci pénc mi bu doon kër ñeme nañ leen koo wan xatul ñaawut wa kafaa billaahi shahiida sëñ Ahmadou noo ngi lay nuyu noo lay ziyaare noo lay ñaan ci suñ borom ñi nga xamante ni dara tëw te lépp a ngi yàlla na wan kiimaan lu fan ci sa jëm te mu ànd ak wér ak wërsëg bu yaatu ba li nga naan ëmb ko ci aw yiw nga tasaare ko ci bindee fi barke sëñ Tuba baax ci sa yitte toog gi nga bi waral ko noonu nga mel mooy sa jikko gis nañ ña nga àndaloon di jàng alxuraan te Daaru Rahmaan gis nañ ñi nga fi àndal diggante bi di sàkku xam-xam ba nga nekkee bitim réew it gis nañ ñi nga fa te ñooñu ñëpp seen seede benn la benn rek ci sa bopp suñ maamoor ko mu wax ni suñu a mel naka jekk ba ba nekk bitim réew moom rek moo fi fay wursam indi ko ñu di ko topp di ko lekk ba jeex loolu seere su rafet ko wat te loolu lépp dafay dëkkal rek kàddu ga waajuru waxoon Cheikh Ahmadou Moustapha daa waxoon ni du ma jur ku ñàkk jot du jur ku yaafus te loolu xam nañ ko ci ñi jiitu ci barab bi xam nañ ko ci itam ci sab jataay kon yéesoo ñi nga wóotu ci barab bi yàlla soo fan gudd barkeb sëñ Tuba ñu sant bu baax a baax te di la bëgg di sant sëriñ Ousmane ci ànd ji nu ànd moom ci liggéey bii ndax cër bi ñëpp am ci la am ci waaye cër ba fee la ko teg mënuñu ko ci lii nii def kon ñoo ngi koy ñaanal suñu borom yàlla guddal aw fanam te may ko wér te mottali yéen ndax sëñ mënu saade bi dafay wax ni boo taxawee ci mbooloo ni yéen ñëpp laa yemale jóomu nga ndax koo xamante ni yemalewul ak kenn boo ko yemalee ñëpp mu gën laa gore te gis nañ taxawaay bi mu la taxaw te lu moom doo nga fi ne ci njaboot kon ni am na taxawaay yàlla ba gën nga ñaanal ko ñaanal xas suñu borom mott li mébatam moo boole mbokk yi nga xamante ne bi ñoo ànd nekk ci biir diwaan bi ñu loxo sayu dama ko tudd waaye am na mbokk yu àndal na ci biir yàlla xam na te mooy fay su ko defee mbokk taalibe yi diwaan bii ñu nekk sëriñ Ahmadou bii moo ko santaan wax nañ ko ci biir liggéey suñ ko doon natt ci ay at war naa dem ci fukki at ak juróom-ñaar kon du gan ci noonu mébatam tam ak yéenéew mooy foo waajur yi joxoñu mu teg fa tànkam fasunu fa yéene yóbbu sëñ Moussa mi nga xamante ni ñun ñëpp mën nu ko weesu daa waxoon ni li ma suñ borom jox mu jëm ci yéen mi ngi nii ma tëye waaye duma leen ko jox mukk li fekk boolewu leen seen bopp li fekk boolewu leen seen bopp ci lu leen boole rekk lay nekk loolu ñun ñëpp koy na suñu noonu sëñ Cheikh taxawal ab diwaan ci kanam ngir lëkkale yoon sëñ Moussa nekk ci njaboot suñ Tuubaa gépp nekk ci sëñ Ahmadu taxawalaat nii jëli tur woowa barkeeloo ko ca liggéey booba ngir barkeeb lëggéey ba ak yéene ña ko sax ngir rek nu lëkkatoon doon wenn say sàppi ci gannaawam naal yi fi mag ñi nu àggale ko mu bëgg nu xoolaat suñu bopp bu baax baax joxuñu ma kenn waaye kenn ku nekk la bëgg nga xoolaat sa bopp doonu seetu ci sa bopp càmbar sa dund xool rawatina jëwriñ yi jiite mbooloo te mbooloo yépp xalaati sëñ Moussa akub akub sampam moo ko fa bàyyi waaye du luñ doon ne ci suñuy bàyyi nu xool suñu diggante ak kii fi nekkal sëñ sa kenn ku ne xoolal sa bopp rek natt sa diggante ak sëñ Ahmad mi ngi nii di topp nun noo ngi nii kenn ku ne nattal sa diggante ak moom ba xam bu ñëpp meloon ni yow moom li mu bëgg dana ko am wala du ko bayuma kenn nag nun ñëpp laa wax bokk yi bàkkaar du wàll te bàmmeel de su ko bokk man amila saalihan fa li nafsihi in ahsantum ahsantum li anfusikum man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi bala koo xam nag da nga wàcc ci biir ko si bàmmeel adduna rumbuxloo bi bari na kër kër ji bari na foo tourné gisi wéttal foo tourné gis ku la ku la wax a yow waaye wéetaay nga ca kanam boo xamante ne ni mat naa bàyyi xel bu baax a baax gis nga ni koy xalaat xalaate ci sunum xel di ko ni tëralee yàlla xam na ne wóote naag la am foofa moo tax mu bëgg nu góorgóorlu bu baax a baax ci ndigal lii nga xamante ni moom lañu ñu jox te jële woon ko ca mag ñi bis bii ñu dàkk di ci daje du bis buñ fortaat ñaari fan ci aw kori ci 1932 la sëñ Moussa woow njaboot gi mbokkal sëñ Tuubaa ñépp tudd leen jumaa ji fekk booba lëggéey Ibrahima bi noppi na mu ne leen naa lu sëñ wi ci laa bëgg a jublu dëgg naa ko tuddeetuma wàññi lu ma am danaa ko ci def lu ma waaye jox danaa la ko ci defal bis boobee lu jëlaat di ko fàttalikoo jataay bii ñu tudd ñaar fukk juróom-ñett ci biir yoo xamante ni awut ci ñun bu ko mënu waaye ñu néew koy def ndax diwaan bi bañ ko taxawalee yàgg na te bokk yi buñ doon tudd résultat bu diwaan bi am dana wéet lool te yàlla xañunu defunu itam ni ñu gën a ndóol ci askan bi waaye bu nu ëndul yëngatu bay bari waaye résultat bu am faaw nu boole suñu bopp boole suñu doole fas ko yéene jaamoo yàlla loolu rek moo ni ci mën a génn ñaar fukk ak juróom-ñett yooyu yi ci tudd itam Sëñ Tuubaa lu jóge direct kenn du ko neel moo santaane liggéeyub jumaa ji muy jumaay Tuubaa tubaab yi xamal ko ni ko jumaa ji moom faaw ba nga ko tàmbali dangaa dajale xaalis ubbi compte ñuy liggéey su jeexee ñu arrêté bu ñu dajalewaatee tàmbali fekk ca déwén sa maam Cerno Birahim indi fa ñaar fukki junni ak juróom-ñett Sëñ ko soxna suñu wax awasaar ci bëkk néegi Sëñ Tuubaa yi la bokkoon soxna awasaar yoroon na buntu am na ñu fa doon jaar sëñ bi laaj la ko wàññi ko muy ñaar fukk ak juróom-ñett sëñ bi wax borom daaru ne ko képp ku aju ci man na joxe ñaar fukk ak juróom-ñett ku ko mënut ko yor sa kilifteef na la ko joxe ne leen képp ku ko joxe mooy sa jot ci sawar sëñ maam Thierno ni ko ndax mënees na koo yaatal sëñ bi ni ko ba kili ni ko am konte ñu cay bañ a bokk ñooy waa Touba ndax ñoo ma dëkkal ca dëkk ba ñu ñu am ñaari xas dëkk Touba ba pare ñu ñuy laaj fa ñett tañ man ko te lu fi yor tuuti tuuti da nga fi bàyyi lu ñuy miraas lu tuuti tuuti rek da bàyyi doon yi lu luñ seddoo te loolu du sens ci ñun yërmaande yooyu rek la ñu sëñ tax mu joxoñ fi mu nu joxoñ kër gi moom ànd lañ baaxoo moom la boroom kër gi santaane moom mii fi nekk moom la bëgg ñi mu seqal kër gi ñëpp it loolu lañ bëgg seytaane nag du bàyyi mukk mission bi jàll lépp lu mu ci man ci gàllankoor ko dana ko def ndax du retraité te am na doole te suñu borom seetaan na ndax téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni ak ñeent jaar na ci ngir bëgg a jagal àdduna mu tëb mboolem awliyaa yeeg nu jabaaw yeeg saabixi rek soxna yëpp jaar na ci bëgg a jagal àdduna mu tël te mel na ko iblis moom yi rek moo fi nekk di gàllankoor di gàllankoor ni mu yàqee nag doo ko xam su la yàlla deful ndimbal amoo kilifa gu laa biir te xam te xàmmee te yéwén man nga caa bañu mucc man ngaa ne ci biir fekk sax la nga nekk du noonu ndax iblis lañu daa fekk kuy kuy nelaw fekk koy julli mu yor wantaay di ëpp kii nelaw nitu yàlla gis ko ni ko yaa bari kii di nelaw ko di ko ëpp te amoo soxla kii julli mu ni ko noppi li may def xamoo ci dara gis nga kii kii kii di julli julli gi yàqu na bu yàgg waaye mënu koo defal xamul nu ñuy defal julli gu yàqu kii di nelaw nag borom xam-xam na te bu yeewoo julli gi baax moom lay bañ mu yeewoo moom lay ëpp ndax bëgg mu yàqu foofu la saytaan di toll ak noonu dara mënuloo mosul lu dul jëfe ndigal suñu borom yi bàyyi tere te borom bi tabaraka wa ba mu waxee ni fa aqimu salaata wa aatu zakata wa atasimu billahi la ca yàlla dañu julli leen te mooy jaamu yàlla xeet yépp joxe leen asaka mooy dimbalante leen boole leen seen bopp bokk yi nañ joxante loxo nanu ànd ngir yàlla te dimbalante te xam ne yàlla noppi na loolu moo di noppal mooy noppal suñu kilifa gii nu àndal penc mii nag bu jàpp ni kenn danañu ko defaral kër gii di kër Cheikh Mouhamadou Moussa bu jàpp ni kenn danañu ko defaral waaye li tax nu man ko mooy nu ànd rek te mbaar mii nu tiim firnde la ci bi nu àndee lan ko man waaye bi su borom indee la ne tam nañu wóor ni ay bari waaye dara du tax dox ak yëngutu nag bokkul noonu dellu si waat suñu xel bu baax a baax te dimbali suñu kilifa yi dimbali suñu bopp boole sunu bopp lamb ci sunu wërsëg sàmmal suñu sàndonom yi kër gii tey bu ñu waxoon ci mbooloo mi kenn bu ci nekk li fi defoon demal jël ko wallaahi laasim dana am ñu ñibbeeg benn loxo ñoo xam duñ yóbbu dara dara duñ ko yóbbu kon mat naa bàyyi xel bu baax a baax ñëwuñu fi ngir jaayante ñëwuñu fi ngir wax kenn lu ko neex ñëwuñu fi itam ngir wax nit lu ko naqare waaye day dëgg ñu di ko wax alxaqu min rabbikum man saa fal yu'min wa man saa fal yakfur sëñ bi waxloo ma ko bokk yi waxloo ma dund ne ci biir kër di ko dund ko xam muy loo xamante ne ni jëkkut jaaduwut yaa fi gën téewut ami nawle nañu xool yeneen buntu kër yi ñu bokkal sëñ nanu dimbali sëñ bi ci liggéey bi mu liggéey nanu dimbali sëñ Ahmadu ci liggéey bi mu liggéey te nun rek loo ko mën a dimbali nun njabootam noo mën a takku nekk ci gannaaw bu ko defee lu mu seen ñeme koo song waaye nii ñu doxe moom fa la yàlla na suñu borom doole dimbali yàlla na yàlla taxaw yàlla na suñu borom dox suñu digg ak seytaane ba li sëriñ bi bëgg ci ñun nu man ko wasalaamualeykum wa rahmatullah di la bu baax a baax. dégg nañ ci wis bi ngeen wisi nee na mi ngi leen di xamale ñu ne yàlla dogal na bég na ci wis bi ngeen wisi woote bii tey. dañ koy def li dox diggante bi. xam nañ ne sax xaw nañ koo gëj a def ngir li dox ci diggante bi ci ñaari at yi ñett. a dëgër. waaye bàyyiwu leen ko yéen a nga ko téye na ngeen ko téye woon mu gën a dëgër tabaarakallah ci jotaay bi rek xool mbooloo mi xam ne. nee na jotaay bi bu fi teew gis mbooloo meeg yar beeg melo yi nga xam ne. liñ bëggoon te yéene ko mi ngi dox bu baax a baax. te wiisuwul bi. nee na melo bii ngeen amee ak ñëw gi xamee nañ ci ne yéen ñëpp daje ngeen. daje ngeen bokk yéene bokk pas-pas. te loolu mooy li nga xam ne mooy liy dëgëral kër gi te liy dëgëral kër gi mooy dëgëral dëkk bi te mooy dëgëral lislaam ñun ñëpp am ci nee na loolu yi ñun ñëpp am nañ ci yéene. moom it mu ngi seede ne yéen a ngi ciy def seen kéemtalaay kattan ngir tabax bii gën a dëgër. kon nee na mi ngi ñaan suñu borom mi fi toogal seen taxawaay yi gën a dëgër. bañ bi dugg nee na mi ngi ñaan suñu seytaane doon pexeem bañ cee tàbbi. fàttali ba tey bi ngi leen di lim leen la fàttali rek. te mooy li nu fi indi te bàyyi nu fi te mooy góorgóorlu ci jaamu yàlla. topp ndigal yàlla yi. moytu ay tereem. bind jaamu ko. te xam ne yàlla dañu fee bind andi lu fi ngir nu jaamu ko. nee na bul ko fàtte mukk. nañ ciy xalaat guddi ak bëccëg. te di ci jëfe suñ kem tëlaay kàttan. nee na nu gën a dëgëral gën a fonk li nu boole nag. gannaaw ci biir lislaam mu yoonu murit wi. muy topp ndigali sëriñ bi te mooy li lislaam digle ak li mu tere mooy njàngaleem sëñ Tuubaa rek nee na buñ ko buñ ci jaaree téye ko bu dëgër te sax ci dakk bañ ciy jóg sunu xel war naa mën a dal incha sëriñ bi ne mi leen di fàttali it ndigalul xalifa bi di kilifaam muy Cheikh Mouhamadul Mountakha Bachir muy Sëñ Tuubaa liggéey bi mu woote te at mu jot taalibe yëpp ak kër yëpp ak daara yëpp am luñ cay jëf nee na waa daara yi sëñ Muudu Moustapha moom mi ko jiite tey mi ngi leen koy fàttaliwaat ngeen góorgóorlu ci ngeen defee ko nañ ko daan defee wala mu gën a pëstee fu jëm ci kër sëñ Tuubaa jooyu kër Cheikh Moustapha am joxe ko jox sëñ Ousmane nee na ku am looy joxe képp koo xam ne joxe na ko jox sëriñ Ousmane Mbacke jëwriñam jii di doomam muy kilifa yi muy kilifa yi ko jox sëñ Ousmane nee na daal lépp lu di joxe mu jëm ci addiya ji jëm ci kër sëñ ci liggéey Cheikh Mountakha boobee na ko teg ci loxo sëriñ Ousmane Mbacke moom moom la ko délégué. bu dajee dana ko jox. bu dajee dana ko indi ci loxoom. nee na muy bokk ànd ak yéen jëbbali ko sëriñ ba. nee na loolu yi mi ngi leen ciy ñaaxaat di leen ci soññaat. nee na lu waay man kéem talaay kattanam na ko def ci liggéey boobu yi jëm ci kër sëñ Touba. nee na mi ngi leen di bàyyiloo xel màggalu xisru na muharram egg seegu sax waaye nag. ngeen di ko bàyyi xel ci waajtaay ndax day ndigal lu fi bàyyi te ndigal moom kon saa su ne téye rek ndigal jëfee rek nee na mi ngi leen koy li ngir ñu gën koo dëgëral mu ne kon asalaamualeykum wa rahmatullah nee na mi ngi xam leen ne ci turu siis bi mu toog muy siis boo xam ne li fekk addunaa ngi dox mooy siisu sëñ Modou Moustapha ku fi toog rek yaa yilif